I do it from the other side. telepon bini Dari tadi tawar eh tadi lo. Kai, kul. Tawa eh. Nah, dua saja cuma telepon. Kai. Dua saja. Kul kang ini, langgai dong. Dua saja. Langgai dong. xamee waaj ni kenn mënu koo jàpp ba nga jox ñu image bi non affaire bi moom jàll na moom sa waaj sama waay la ñoo jàkkaarloo place man ak moom chaque jour ñu wax ni kenn mënu ko jàpp quoi ci affaire de caméra kase ak affaire yooyu noonu si laa woo sama gars papa dam moo ko dama bëgg nga jàppal ma ko mais affaire moom réussite total la waaw réussite totale ñun nag ñoo nekk fi di jaay pièce moto yi quoi en face station appui bi sur national bi waa Kër Bagnès dañuy jaay en gros dañuy jaay détail dañuy jaay ay jaay huile lepp lu ngeen bëgg ci walum pièce rek yu dem ci moto am nañ ko wa numéro téléphone bi 78 540 27 45 456 45 03. waaw gars yi comme ni ngeen ko déggee rek ki station Yeah! lépp jàmm naka tey kóol laa bëggoon joxal benn espace culture bii ne ma xool espace culture. foofu set foofu set bi waaw ma xool set. daa nag. Oke, jangan bobo, la Beli joxal boobu ma jar loolu 65 65 mille loolu da siy lan la. sàcc la jël téléphone bi nag. da ngay sàcc taawar eh. sàcc nga kaay Kool. waaw ngi nii lan ngay eh. daw. Eh, eh. lan ngay daw. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn kii ñëw naa doon rek kii bi laa bëgg. ñu wax mu mu génn bëgg a jël loxo sa loola mu demee noonu. yow loolu liggéey bi la la wax. waaye damay waxaale teewoon mooy loolu. waaye xajalat. waaye déedéet daw lan ngay daw waxaale ba mooy loolu rek ma fekk nii. ah déedéet lay daw. waay dawuma lan ngay daw daw waay waay kay kii nga dépassé dawuma waay dawuma waay. dawuma fen mu naa eh, eh, eh. yee. daal booy amul ngay daw yow la jëlee sama jàmpa yi doo te xam. nii mooy. loolu tamit mën ngaa jàppante ne bàyyi waaye bàyyi ñun da ngay sàcc mooy loolu waaye sàccu ma la ah sàccu ma la. amul lu ñuy xool nii gars yi dañ lay yóbbu jël waaw yóbbu jël man kenn du ma yóbbu jël mën a lay jël kenn du ma yóbbu jël. kaay ma déglu déglu kaay ñu waxtaanee kaay ñu waxtaanee kaay. kat mën na ma ñëw waa téléphone bay kii nii. waaw xam naa la xam nga ma yàgg naa ñëw waaye téléphone bi laa waxaale ak moom ba pare mu nekk fii naan ay neeg nii. dinaa wax dëgg ko fay. fay naa ko jox naa ko xaalisam. jox naa la ko. kan nga jox yow laa ko jox. <laughs> boo ko joxee moom ñoo topp di daw. waaw jox naa ko xaalisam. fan nga ma joxe xaalis. waaw fan laa ko yu jeexee pour dul sa place. ana bagage yi jox naa la bagage tey. waaw joxoo ma dara mooy loolu. ay sàcc nga naa ma ay xamee woo sàcc ak ku dul sàcc baay. waaw du ma sàcc baay. moom bi laa bëgg ma génn ko jox ko sama avance yi ni ngeen a joxal ma xaalis. waaw joxuma la jox naa la xaalis baay mooy loolu. waaw mooy loolu. amul la. boobu it laa bëgg gën a nga génn daw. waaye mun naa xam nga moom baax xam nga baax xam nga sàcc yow. ñaata at ma ak yow xam nga moom mu jaaxal ñu koy loolu tamit jaaxal tamit ko jàmbaare wuy 干嘛？ mooy yow mooy yow loolu la ma mooy yow. non non loolu jërëjëf ñaar dañoo baax rek di seetaan nii mooy loolu ñii dañoo baax di seetaan rek nañu wax lu leen neex. waaw yow yaa yaa yaa dugg la neex waaye tamit. waaw ñii nañu wax lu leen neex mun naa ay baax di seetaan. comme noonu la demee ñëw na jël téléphone booy la. man di daal wax ne nag moom. non garaaw lay wax bu ko defaree dinaa ko jeex. leer laa lay wax. jaru ko jaru ko. jaru ko jaru ko ah mais xam nga ko mooy. boo ñëwee def yi yi yi moom mooy la. waaw ma génn ko sa waay awa. Ah. Ah. kii dafay mën a kii mënoo fee jël dara raw. booy da ngay compte rek. nit ñaa ngi nii toog mënoo raw kii. ah définitivement bu dugg ci joxaat na joxaat na la ko. jox naa ko récupéré naa ko jox ko. ko ok nijaay ñu ngi jégal loolu. duggati ci yooyu. caméra kase la ñu ngi jégal caméra kase. Ting say day waay. Ngena wala jaay ngena wala jaay ngena wala jaay jaay <laughs> non mu ne moo la jaay woon yow nga fay nag yow